man bu lay yabu ñoom yaay gis bu ñëpp defoon man góor yàlla bu lay bu ñëwee nga taxaw raagal si ñoom place yi ñu jox pour ngeen toog si lu tax leen si territoire bi ngeen a toog nii si loolu li la ndax territoire bi ngeen toog si la nit ñi war jaar waaye ngeen ñëw laal si mbedd mi teg si territoire fan la nit ñi di jaar dama la si li bi si la bu ñu la da ngay bu lay bu lay rek bu lay man dama lay pas sama neex koy wax yéen bal ma dagg bal ma dagg naa bal ma dagg naa bal ma dagg na yàlla eey bal ma dagg naa bal ma dagg naa bal ma dagg naa ay bula yaa ko lakkale waaye nag dañu xam ne kulo nag ëpp sagar moom dangay fondu bu la bu la yàlla benn pas sama dama ngaa su ma neex laa ki làmb sarax ngi yàlla ba ba borom tuba ka ba rasul jilitu yàlla yi mbokk yi ana ki làmb sarax ngi yàlla ba ba borom tuba ka ba rasul jilitu yàlla yi mbokk yi yàlla la yàlla fay ana ki làmb sarax ngi yàlla ba borom tuba ka ba rasul jilitu yàlla yi mbokk yi incha allah moom gën a fekk ak loolu